عليك صلاة gërëm tim Barham Universel Média bi nga xam ne bii moom may ma mën a communiquer ak ñi nga xam ne ñëpp dañoo war a ñëw ci gàmmu gi di wax rek ne Senelec comme ni nga ko baaxoo defee rek noonu ñu koy defee rek incha allah cette mooy lépp aajo ci saytu réseau bi mooy li nga xam ne mooy alimenté kër yi loolu ci la nekk mooy réseau li tuddee réseau moyenne tension comme réseau basse tension dañ ko dañ ko saytu mooy toppatoo ba nga xam ne bu gàmm gi ñëwee du benn tolof tolof dañu xam nga tay ba ngi seen maanaam euh, li nga xam ne moo ko alimenté départ bi kawoon la jógee mën tuddee départ Nioro ci suñ maanaam su suñ waxin ñun mooy dem ba Nioro dem ba Kër Ayib bu ñëwee ba dingiraay nag fa la maanaam jàddee ñëw Taïba ba tax na de kawoon ba Taïba ngi seen yëpp ñu jël ay nit yoo xam ne ñooy toog ci yoon wi ci poste yi pour que su amee problème rek ñu mën a intervenir rapidement waaye nag li nga xam ne lii moo nekk ci biir maanaam euh, Taïba ngi seen moom incha allah ni ñuy def mooy bis bi jotaa dañ jël benn groupe de secours def ko ci booru jumaa xam ne su fekkee ne réseau bi am na tolof tolof incha allah su fekkee ne amul benn jéeya. mooy oto yi nga xam ne ñuy daw ci tali bi mën nañoo déraper mbëkk poteau yi bu loolu amut incha allah du am benn déclenchement waaye bu amee déclenchement tim groupe bi nekk si booru jumaa ji incha allah dana alimenté jumaa ji ak kër baay ak kër yi ko wër yëpp loolu mooy disposition yi nga xam ne jël nañ ko ñaari bi tim am na tim ay équipe yoo boo xam ne bii fii nekk ci biir Taïba ba ba nga xam ne bii lépp loo xam ne lii paan la ku am paan ci maanaam ci sa këram sax su wootee rek Senelec dana ñëw pour daal di ko dépanner peut yàlla lu mooy disposition yi nga xam ni maanaam jël nañ ko ñaari biti mooy eh, li moom la ci ci soxla woon muy comité bi comme soxla pour ñu yokkaat maanaam li nga xam ne lii mooy jëm ci poto yi pour mën a alimenter clients yu bees yi loolu tamit dañu ko def balaa incha allah altine ci suba. waaw euh, bésu gàmmu wax nga ko euh, nañ pour mu bañ am benn délestage. waaw délestage moom léegi alhamdulilah délestage moom baat boobu boo gisee tax tudd ko. mooy ba délestage léegi amatul ndax délestage bu njëkk ba li ñuy ndax amuñu woon manque de production la nga tuddee mooy li naan togg ci courant moo doyutoon moo taxoon ñu daan coupé ñii bu yàggee ñu coupé ñëlee waaye léegi li ñu toog ci courant Sénégal doy na sëkk gis nga fan yi passé rek président Macky Sall mi ngi inauguré benn centrale éolienne fële ci Taïba Ndiayène pour wane leen ci wàllu wàllu production ci wàllu toog courant gouvernement bi def na ci ay matuwaay yu mat sëkk ba nga xam ne léegi mbooleem ci Sénégal waaye soxla courant mën nga ko am te nag courant moom doy na sëkk wax naa la courant doy na kon mooy délestage du am li ñuy wax rek mooy li am rek bu bu courant coupé rek xamal du du délestage lay doon panne nag moom wax dëgg yàlla euh, moom euh, bu ñëw day bett nit waaye nag lii war a ñun suñu bopp def nañ ko mooy saytu nañ suñu réseau bi xool nañ ko càmbar nañ ko jàpp nañ ne allah ba mën a bañ a am coupure waaw ah, jërëjëf jërëjëf Sall Ba jërëjëf. عليك صلاة الله ثم السلام وبرهام جد عاشقنا فيك